E-Media SN waa E-Media SN li ñu wax c'est clair li ñu wax c'est clair ñoom ba ñu sonee ci bunt bi ñaari yoon rek lañu sone xale bi tijji mel ne mu ngi leen doon xaar ñoom loolu la ñu bind waa E-Media ñoom ñoom jugé bu buuf tamit di ñu ay pro da nga leen di comprendre c'est pas des professionnels ñu ngi doo commencé parce que ñoom dañuy wax ba ba wax lu ñu warul wax ba pare du gën a dugal Ousmane Sonko ñoom di ñoom jugé bu am na benn erreur bu ñu def mooy ne dañoo bind xale bi waxu leen Khady Ndiaye waxu leen ne Ousmane Sonko dafa indi diwlin diwlin diw diw bànneexu diw frotte diw diw diw massage waxu leen ko de huile de massage waxul huile de massage frotte la wax man dégg naa audio bi Ousmane Sonko buy ñëw dafay indaale frotteem waaw frotté ak huile de massage gars yi wuutewul dañoo xam da dëgg diwlin diwlin kay boo ko diw diw mais loolu boo ko wax dañ naan est-ce que du diw boobu la lay jël pour pour pour masturber wu ñoom du yëbbu lan moo tax ñu bind huile de massage te te ndaw si ne frotté Ousmane Sonko buy ñëw frotté lay indi yéen ngeen dem bind huile de massage loolu article Bob, est-ce que ça pas un acte commandité commandité est-ce que gars yi bëgguñu aussi gën a dugal di bu bu euh, di euh, kii parce que Khady Ndiaye boo demee ñoom ñoo ko sax wax parce que loolu lay gën a nduru léegi da ngay bàyyi ñoom DJ Boubs su ñëw lu tax TFM demul def enquête lu tax go demul def antek, lu tax Sénéweb demul def enquête amuñu xel bi mais ñom bu yeyé bu rek ño am xel ne xara ñu dem fexé ba xam fa la kër gi nek te ñom jije bu bu ñëwee ñu gis kër gu xonk ñu ne këru caga maison close mais lolu lan mo leen wax lan li maison close la yow yaa ngi ñëw gis kër gi ñu peinture ko kër bu xonk man gis na photo bi mais lolu rek ci lolu rek nga ne këru caga la maison close kon ñom déjà dafa mel dañu bëggoon préparer opinion bi article DG boo ko liiree dangay bàyyi Sonko ci saasi parce que da nga naan këru cega maison close huile de massage man huile de massage bu ma ko jëkkee dégg sama xel li mu ci xalaat mooy diw lu nu bànneexu laa ko tuddee moo la Sonko di jël pour bu ko xale bi di defal lu mu ko war a defal comment donc article bi te loolu xam nga Sénégal des fois ci commentaire yi man su ma liiree des fois damay wàcc suuf seen web la lire article boobu mu wàcc suuf ci la lire ben commentaire gars yi ne article bi gars ñoko commandité pour yak Sonko ñu né israélien bi service secret israélien ni lañuy def dañu jël ben article melne ne kuy kuy wax ne Sonko deful dara mais ci biir article bi ñu ngi wax ay huile de massage ñu ngi wax ay grossesse ak mais ñu ngi wax déjà Sonko mi ngi fay ñew client la kon ñu ngi duggal Sonko mais nak ça leur a explosé à la face li ñu def. bu dee dañ ko commandité dafa nag daal di sax dimbali Sonko far article boobu danañ doon jéem a yàq Sonko ba far nag dimbali ndax ndaw si li mu wax sa clair duel amu fa xëy na nag ñoom dañoo fàtte ko ko ci xale bi Khady Ndiaye ne ko da ngay wax ne daal ñu ngi fay ñëw xëy na Khady Ndiaye loolu rek lañ ko wax la woon yow daal waxal ne Ousmane Sonko client la mi ngi fay ñëw buy ñëw day indaale lii day indaale laa vingt mille francs lay fay mais Khady xam naa dafa dem ba ci biir xëy na moom it patriote la parce que Sonko ñi ko bëgg dañoo bëri wala mu am mag bu bëgg sonkoo wala mu am ñu am ñu ko xelal ne ko fexel rek ba nga seetal Sonko mën naa am ñoom Sonko ci diggante bi ñu xam affaire bi nu mu demee ñu woo Khady Ndiaye wala ñu woo magu Khady Ndiaye bi foofu Italie la xaw ma Ousmane Ndiaye parce que Ousmane Ndiaye génn na après di wax ay 40 ay lii ak lii léeg boo demee amul sax 40 millions kan mooy fay Sénégal 40 millions nit kon ci diggante bi ñoom Ousmane Sonko mën nañu xam lu xew daal di def pression ci Khady Ndiaye fexé ba ñu wane ko né dal viol amu fi saa yu ñëw fi mom fi la ñu nekk sama minda mindaa dafi nekk patati patata c'est une histoire rocambolesque mais li day wane ne gars ay ciuné lañu c'est des c'est des ciuné mënu nañu gëna a enfoncer Sonko mais Sonko de toute façon mom il est enfoncé déjà mais nak viol bi ñu doon wax mom lool rek lañ ko mëna jappé té viol bi ñom ils ont tout bâclé fi mu nekk nag avocat ndaw si Khady Ndiaye néna gaay dañu bëgg nak Khady Ndiaye nak daal di nak changer histoire bi nak far lolu avocat ki moko wax bu sa Balde avocat khadi Ndiaye bu sante Balde nee na Thiès la doon dem ci yoon bi lañ ko wowe ne ko ñëwël nga représenter suñu cliente ba mu démé nee clientam cliente dañ ko doon torturer fofu muy joy, domam bi nga xamné ne prématuré la mom bébé kanguru. dafa war dem diko jox chaleur maternelle hôpital mom elle est hospitalisée avec sa fille mais le commandant diko ko diko di diko guen ci biti sedd bi patati patata bu xalé bi déwé yow Bassirou Gueye tu es responsable toi le commandant tu es le responsable ñu bëgg forcer xalé bi def ko torture tëj ko weekend bi Khady Ndiaye weekend bi pour mu craquer pour qu'elle change la sa version qui disculpe Sonko mais fi mu nekk c'est trop tard Khady Ndiaye même bu ñëwee né Sonko violé la kan mo koy gëm yow nga ne Sonko deful dara même bu ñu défé pression ci yow bu ñu defee pression ci yow pour nga changer sa histoire c'est trop tard te lu tax ñuy def pression. loolay wane donc ils n'ont pas de preuve vidéo bu ñu amoon ay preuve vidéo ne Ousmane dafa dafa violé xale bi du ñu soxla def pression ci Khady Ndiaye du ñu sax jàpp Khady Ndiaye ils n'ont pas de preuve de viol xëy na am preuve adultère maanaam Ousmane Sonko xale bi doon na ko maase mën na am sax tëdd xale bi tëdd na ak moom wala moom xale bi da ko doon maase rek ba. Je ko ba ba affaire bi sais man gëm preuves ne peut-être mais preuve viol preuve viol ils n'ont pas ça buñ ko pression pour nous changer histoire vous vidéo kay ngay ngay wut ay hein? man non affaire bi analyse trop tard même si elle change son histoire co a été lavé à grande eau sur le viol Sonko est innocent sur le viol en tout cas mais nag fii Sénégal la fii Afrique la même bu que ne Sonko Sonko deful dara nous ñu coaché Khady Khadisar ba Khady ne daf maa violé filmé ma comment commencé nettali mosoon nous fi ñëw six mois ngi nous mu hein ben ah benn jour li ma def même bu amul ay preuve ay viol ci loolu ci Khady wax ak les preuves euh, biologiques ah sperme bi DNA euh, ADN ci loolu rek mën nañu éliminer Sonko mën nañ ko éliminer Sonko loolu la xam moo tax wuyuwul man démb sama sama vidéo loolu laa ko dama ne Sonko bu demee dañ koy jàpp noonu laa ko titré man dama yaakaaroon ne sax démb moo doon lundi ma ne après l'audition Sonko dañ koy jàpp man loolu laa ko titré man maa ko njëkk bind Sénégal ah ma di gisuma ko fenn effectivement Sonko loolu la xam moo tax mu ne demul buy dem ñu mun na am ñu téye ko mën na am duñ ko téye. mais man su ma doon Macky Sall su ma doon Macky du ma ko sax jàpp dama koy bàyyi parce que déjà deru Sonko yàqu na lu bëri même bu ko question sax ay deru Sonko yàqu